li xew li xew Ziguinchor mooy nee nañu am na ay étudiant ay ndongo yu nekk ci daara gu kawe gi di Cheikh Anta Diop yoo xam ne ñetti wala ñeenti fan a ngi nii ñu ne ñoo ngi manifester Ziguinchor ba mën a di génne ay élèves te nee nañ li tax ñuy manifester mooy lima ci dégg daal ñaari poñ la Dakar ñaareel bi nee nañu subvention nee nañu mairie bi da leen daan jox te am lu mu leen daan compal te jotatuñu ko ba tax nag ñu am sañ-sañu di def li ñuy def te dinaa ci dellu si ci nu mu gën a yaatoo ba sénégalais xam li xew waaye li may wax rek mooy dama bëgg sénégalais xam ni dafa am benn xeetu doxalin bu fi yàgg am ah du ma ne la soppi ko na fépp de waaye man tànk maa ngi Ousmane Sonko ay nit wóoluma ma ba dénk ma am na xeetu doxalin boo xam ne du musa am te kenn mënul wañ sama loxo kenn mënu maa def chantage kenn mënu maa delloo gannaaw du ma tooñ te su ma waxee ba pare Sénégal yëpp dinañ xam ni du ma tooñ du tooñ du ma def lu warut yéenewu ma nit lu bon yàlla seede na ni sama xol bi yërmande rek laa ci am ci képp kuy dund waxuma laa képp kuy senegale waaye nag yàlla ci boppam gannaaw bu mu amee yërmande ci ñun boo xam ne ñun ñëpp xam nañ amul àpp dafa teg ay charte ne nii lañuy ñuy doxale te faw rek ñuy essayer tënku ci loola kër googu ñuy wax mu nekk Grand Dakar kër la boo xam ne dañoo fekk mairie bi ci jamonoy Ablaye Balde moo ko loué woon mairie bi di ko fay weer wu ne kër gi fukki néeg ak ñett moo ci nekk treize chambres xam ngeen ni treize bariwut étudiants yi nekk ndakaaru te jógee Ziguinchor ay centaine yi centaine la ñu war a sax ay milliers kon la ne foofa su bëree ba bëri gaw ma ni mun na mat deux cent personnes ndax bu dee néeg bu nekk rek juróomi nit nga fa def defe naa cent soixante cinq personnes ñoo fa mën a nekk wala cent soixante kon étudiants Ziguinchor yi fi nekk te di demal seen bopp dëkkuñu ci ba euh, batiment boobu kenn xamul ñaata la ñoo ëpp téeméeri junni yoon la tax maire bi luyoo ko moom moo ko xam parce que ñaare problème yi ñuy am mooy am na ay pratiques yoo xam ne ay mairie ñu ngi koy def mais soo gëstoo ba ci biir amul sax base légale amul cëslaay léeg ñenn ñi du ma ne Ablaye Balde bi mu koy def loolu la woon de waaye ñenn ñi politique sax moo tax ñu def ko mooy dañ koy jël segg seeni militant seeni jeunes yoo xam ne seeni militant lañu yóbbu leen ci kër yooyu muy mbirum politique bu ko defee ñooñu nekk dans des conditions ñu leen mën a politikale am na ñoo xam ne lool loolu la ñuy jublu may wax ni Sénégal boo jëloon cinq cent cinquante et quelques communes yi fi nekk communes yi nga xam ne jëlal nañu seeni étudiant bâtiment bu ñuy dal dañ leen di compter mënuma leen lim de waaye dañ leen di su ma jëlee Casamance gi ma ne rek commune bi Bignona am nay étudiants yi dul jeex fi commune bi Bignona jëlalul étudiant am bi daa bi étudiants yi waxee commune bi Bignona dañ leen ne mënuñu ko commune aussi defu ko keneen ak keneen tey boo demee université Ziguinchor ay étudiants Dakar a nga fa waaye commune Dakar bi nga xam ne budget am dépassé na cinquante milliards jëlul immeuble Dakar boo xam ne daf fa def ay étudiants communes yi nga xam ne jël nañu immeuble pour seeni étudiants dañ leen di compter Sénégal commune Ziguinchor bokk ci ñu jël ñetti immeuble jël nañu immeuble Ndar université Saint-Louis jël immeuble bambay université bambay ak immeuble bii nga xam ne moo nekk Ndakaaru jamono jee étudiants yi nekk Thiès am na ñu ci contacté ba ñoo ngi doon xool naka la ñuy def ñoom it ba jàppale leen kon lii luñ fi fekk la ñoo ko fi fekkee it am naa problème am naa sikki sàkk ndax lan sénégalais yëpp dama bëgg ñu xam ni daara yi féete kaw commune amu ci compétence commune dañ ko jox ay compétence li ñuy wax compétence transférée xam ngeen ci wàllu njàng man lan mooy sama compétence préscolaire mooy jardin d'enfants yi ak élémentaire mooy école école yi nekk ci suuf collège ak lycée sax du sama compétence compétence su conseil départemental kon man waruma agir ci université awma base légale ci wàllu comptabilité dëgg-dëgg ci wàllu budget naka la ñuy def pour mun a justifier dépense yi mooy dañ ko dugal ci location d'immeuble rubrique location d'immeuble mais ëllëg cour des comptes wala IGE mun na ma ñëw vérifier ne suñu waxee location d'immeuble immeuble administratif moo taxoon ñu wax mooy mairie bi nit ñi xajuñu ci mairie bi mu soxla annexe te amul bâtiment mu loué annexe wala loué na service technique am yi ay batiment wala loué nañu comme niñ ko defee Ziguinchor li ñuy tuddee maison de la justice commune bi moo ko luweel bâtiment ku am dégg-dégg dégg di nga xam ne su ñuy wax location bâtiment bâtiment administratif moo tax ñu wax waaye du luweel ay étudiant bâtiment te bu leen fàtte lan la ñu toppee woon Khalifa Sall tey maire bu jël bâtiment di ko luweel étudiant rek ëllëg mun nañ la toppee loolu donte question d'interprétation la question d'interprétation la mais amuñu base légale bu wër bu wóor boo xam ne tey man Ousmane sonk war naa mën a justifier li tax may fay un immeuble à Dakar pour ay étudiants te yéen ñëpp xam ngeen nag bu amee ku ñuy wër ci Sénégal man mii la moo tax bi ma toogee mairie Ziguinchor ba léegi li ëpp ci problème yi ma am fan la jóge dañ may bëgg a def loo dara may leen lii duma ko def parce que amul base légale ñu ne ma waaw mais gars yi dañ ko doon def ba nit ñi tàmm nañ ko man leen loolu man mënu ma doxee noonu dañ maa jox ay compétences jox ma nomenclature budgétaire su may voté budget su may jëloon benn ligne ligne boo xam ne bokkul ak li nomenclature bi euh, euh, euh, prévoir moo ko yóbboo préfecture préfet mun na rejeter sama budget man am naa formation boo xam ne rek xam naa ni ñuy defaree budget xam naa luy finance publique moo tax duma ma topp bànneexu nit ñi ba def loo xam ne mën nañu jaaree foofu muy prox ndoll bu ñu ma jekkoo man waaye ànd ak loolu yépp pour cas bi ma ne dinaa def exception je prends le risque je prends le risque parce que question d'interprétation la bi ñu ñëwee toog ñu ne nañ ko wëyale nañu xool sax nu ñu gën a jàppale étudiants yi bay xool waa Thiès nga xam ne tey amaguñu bâtiment nu ñuy def ba jàppale leen xam ngeen li tax loolu parce que d'abord suñuy doom lañu sama taamu man maase na ak ñenn ci ñoom peut-être te Ziguinchor sori na waaye ñun nekkoon nañu étudiant man jóge naa Ziguinchor ñëw ma Ndakaaru de Saint-Louis laa dem ñoom suñu defee quatre cent quatre-vingts kilomètres man def naa sept cent kilomètres wala ko pour dem jàngi te gisuma woon mairie gisuma woon conseil départemental on s'est débrouillé lii ut ay immeuble pour étudiants yàggu fi mu ngi doog a xew te nee naa la commune yu koy def dañ leen di compter ñu ne donc nañ ko wéyale te essayer gérer les aspects financiers budgétaires ñu bàyyi affaire bi dem jamono ji may wax ak yéen commune bi amelul un franc locataire bi bailleur bi du moins bailleur bi laa doon recevoir léegi ci suuf balaa may yéeg def conférence de presse montant loyer bi quarante six mille et quelque la ñu koy fay tous les six mois bi ma ñëwee bu leen fàtte ni avril laa jël bi ma ñëwee avril dama fay semestre boobu muy avril ba juillet juillet bi ñu duggee juillet ma fay dernier semestre année bi waaye comme contrat bi mois de 3 novembre la war a jeex sooy fay da ngay fay ba fu contrat bi yem muy le 3 novembre kon fi ñu toll nii tembe commune Ziguinchor ameelul un franc bailleur bailleur bi ay weer ci gannaaw mu woo bailleur bi ne ko ah man de bëgg naa ñu waxtaanaat ci contrat bi ñu waxtaanaat ko bu ko defee ñun au ñuy fay tous les six mois dañuy fay benn yoon ci année bi début d'année ñu mandaté trésor fay mbir mi jeex waaye bëgg naa aussi ñu renégocier yenn clause ci euh, contrat bi ci diggante bi layi am am parce que su ma leen nee lii moo ci nekk kon yéen ñëpp di ngeen ne waa lan la lan la xale yooyu di di yëngatu parce que ma wax leen ni étudiants yi nekk Ziguinchor yëpp di yëngatu est-ce que xam ngeen ni seen seen bagage mu ngi ci immeuble bi suñu ñibbisee tey ci immeuble bi lañuy ñibbi kenn génnewu leen ci immeuble bi kenn joxu leen préavis ne leen da ngeen di génn loolu bu doon am bailleur bi man lay waxal man man ñii di maire bailleur bi musuma bind ne damaa soxla sama waa lan moo fi waral li kon kenn ku ne ci yéen war na posé wu la question naam bi ñu am commencé def seeni programme ak seeni politique laal leen ne bu ngeen ko continuer contrat bi dama koy annuler ñu commencé def seen yëfu politique te dinaa ci dellu si laa leen ne yem leen wala contrat bi dinaa ko annuler te dara duma ci fekk parce que du obligation ci mairie bi risque la sax bu ñuy jël ñun waaye nag koy jël risque mu ay ay politiciens nekk ci gannaawam di ko manipuler loolu bëgg a doon problème bu buñ ci tollee ma annuler lan mooy problème bi ma wax leen ko tey bi ma toogee mois d'avril ñu def ñaari weer étudiants yi dañu ne dañ maa bëgg a gis ma dalal leen mairie biñ ñëwee ñu ne ma ah ñun daal dañoo bëgg mairie bi rembourser ñu cinq millions man leen rembourser waa cinq millions yi fan la jóge